يرضى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرتضى وعلى آله وصحابته ذوي التمكين والرضا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يلقى المسلمون الفوز والرضا موكي جلت yu نكتي yi فسنتي كوي gox ak ci bitim réew tànn leer ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu Walfadjri fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rekk ah leeni ngi leen boole te juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a yell ma tibbee ko ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di del ci kartanal yàlla fas yéene sof yéen li ma sosoon yéen muy xadiisu sabaax bi ngeen baaxoo am bët bu set rek ci waxtu wi ma del siwaat di ko sof ak yéen war a sof ak yéen ci yaa ayuha alladina amanu la tasalu hee yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla bu leen laaj an asiya ci ay mbir bu leen laaj yi mbir loo xam ne suñ leen ca tontoo mu naqari leen te am na koo xam ne bu la tontoo tontoom la naqari la ba moom mi la tontu li mu wax naqari la da nga jaaree dem safara ndax koo xam ne liñ ko laaj lim la tontu kàddu yàlla la muy alquran wala lim la tontu xadiisu yonent bi la mais yow arrangé wut la nga jaaree ca bañ tontu ba ba bañaale ki la tontu héehée loolu dafa lay dugal safara moo tax mu ne laa tasalu bu leen laaj an asiya ci ay mbir mbir yoo xam ne in tubda lakum buñ ko feeñalee ndéem feeñaleef ko ñeexal leen tasu ko mu naqari leen am na koo xam ne tey bu meree ba jéggi dayo fase jabaram ja fase woo xam ne du ko mën a jëlati mukk mukk wala bala koo jëlati ba'da sawji boo ko ca tontoo soo moytuwut danay dem dafay dem seeti ku ku la gën a xoyaf bu demee ca ko kooka ne ko waaw waaw man nga koo jël kay dara nekkut ci yow ci sa bopp mu bañ la bañaale li nga tontoon fekk li nga ko wax kat mooy aayaay alquran ya li nga ko wax mooy xadiisa yonantu ba yu wér ya moo tax bëri laaj baaxul yàlla dafa ñu tere bërig laaj bërig laaj dafay waral bërig waral bërig waral dafay waral yokkat ak ña ñuy waral yokkat ci lu baax dafay xeñe yiw moo tax ku bëri ku bari ñu lay conseillé rek nga dof su fekkee mbir mu ne bala nga caa dugg ku ne nga wax ca dootoo defati dara ku bëri médecin dee ku bëri ay conseiller dof kenn mënu ci dara nit dafay dogu te doyloo yàlla fa ida asamta fa tawakkal ala llahi yonentu bi yàlla dafa wa saawirhum fil amri diisu leen rek mënta ñàkk waaye nag bu dara desut lu dul nag jël décision yaa ko jëlal sa bopp nga sukkandiku ci yàlla rek dem defi ko waaye su fekkee lu ne bala nga koo def fu ne nga dugg laaj ba gën bëri laaj baaxut dafay toroxal nit aaya ji mi ngi mel ni suñu réew mi la wàcc ñi fi gën a bëri problème mu fase dafa leen di gaar ba ngay takk jabar doo jàng nu ñuy fase nga dem a dem a dem ba bis jor rek nga fase sa soxna si boroom xam-xam bu ne da ko laaj man de li ma ustaas diw tontu ak li ma diw tontu duñ benn kii nag li ma wax moo ma gën a arrangé moom laay jël diw xamut dara fekk na li ko waral xuuteeg laaj dafay waral xuuteeg tonti nga taxaw wax sa jabar ji ne ko fase naa la fase mu dog fan yi rek am na ku ñu ko laaj du ñàkk mi ngi may déglu saanam taxaw wax fase bi wax jabar ji ne ko fase naa la ñetti fase la wax jabar ji goro ba ku baax la ku ragal yàlla la boroom xam-xam la ndax dafa yaru ci biir nit ñu baax ñi ndeysaanam goro ba ne ko dootuma la mën a joxati soxna si baax da sëw ji rek yaa wax ñetti fase donte la tay pi mooy benn waaja dem fu mu dem ñu bëree bëri ñi ne ko mën nga koo jëli kay dara newu ci kooka nag ne ko waxkat yi bari nañ waaye man ñaar rek laa cay déglu goro ba moo ko wax loolu ndeysaan xam naa ne yàlla sagal ñu ca mu boole ca ñaar ñam wax kooka nag jàllar bi ko wooma ma ne ko li sa goro bi wax rek mooy àtte bi te boo demee ci sayhul muslim da nga ko ci fekk Omar ibnul doon ko attewoo buum la woon gu yàlla rawoon ñetti raw raw ne la boo gisut loo xam dem ba sës daggal benn raw raw bi boo demaatee ba ci kanam xamoo xamatoo nga sësaat daggaatal beneen raw-raw bi boo demaatee ba sësaat xamatoo foo jëm daggal raw-raw bi buum nga door a dagg nag buum nga nag bu xasee dagg dafay rëcc ci say loxo delluwaat nag moom soxna ca ca geneen góor gannaaw bu yedd ja jeexee mu takk ko wéet moom fase ko mu jàppaat yedd ba mu jeex ci nga koy door a mën a takk ndax sa buum gi ñetti dagg-dagg yépp ñetti raw yow yëpp dagg nga ko dañoo bëggoon nag nga dagg ko par étape par étape par étape yow nag boo ne sama paaka bi ñaw na dama koy daggandoor wenn yoon ba tax nga ne fase naa la ñetti fase aa ah, buum nga dagg na jeex na dootoo ko mën a takkati mukk lu dul gannaaw baax da sëw ji Omar ibnu Xataab moo doon wax ne nit ñi yàlla dafa leen a may ab atte boo xam ne man nañ cee niggandiku ñi far yàkkamti ko ma jël atte ba ñu yàkkamti gàcce ko ci seen kaw ne ko ñàkk nga sa jabar ji di la sa jabar ji di sa goro bi wax loolu la de moo tax boo takkee soxna danga war a jàng nu ñuy fase ba mokkal ko booy fase nga xam ban étape lay fase bu ko defee nag ah boo ca fasee da nga xam ban diggante la nekk waaye nag boo fasee ni nga meree rek fase ma tàbbi na am na sax ku ma laaj fan yi naan ma man de soxna si dama ko doon café rek di seet ni mu toll ci man mu wax ma ma ne ko fase naa la ñetti fase mu dem wax ko baay ji baay ji ne ma ñàkk nga fase ma wax ko man dama doon kaf rek ma ne ko li la baayam ji wax mooy dëgg ñett seen dëgg dëgg la seen kaf dëgg la yonentu tubee ko wax du waxi kenn saraxe ak maye ak fase xam na riwaaye bu ne saraxe ak maanaam goreel ak ak ak fase oo sa jabar bam ñëw nga ne ko fase naa la de mu yée mu yëkkati loxo ya yuuxu nijaay lii noo ko mane mu ne dama doon seet noo tollu ci man rek tey nga dee de su boobaa fase ma tàbbi na bu dee ñett ñett la bu dee benn benn la bu dee ñaar ñaar la bu dee bu dee ñett tamit ñett la nga ñàkk soxna sa mu jeex lu du gannaaw baax da saw naka noonu tamit xoo sa jaam bi ñëw nga ne ko goreel naa la mu ne jërëjëf nga ne ko dama doon kaf perte nga ko goreel ga tàbbi na woo nit kii ba mu ñëw nga làmb sa poos ne ko maa la sarax ñaar fukki junne yii mu dugal ci poosam ba pare nga ne ko dama doon kaf delloo ma ko yonent bi nee na boo ko jëlaatee yaa ngi mel ni ku wàccu ba pare di ko lekkaat ñett seen dëgg dëgg la seen kaf dëgg la muy saraxe muy saraxe dugalaale maye ak maanaam goreel ak maanaam mm, maanaam fas fase tamit foog nga xam baat yi nga koy tëggee soo bëggee noppalu lu la sa jabar ji mën a defati mu métti la nga ne damay fase rek ne ko fase naa la te ba nga koy wax nga yéene ci sa xol bi benn ba xemal ci baat ak fase naa la moo gën a moo gën a oyof feeg yaa ngi tudd fase moom neex naa lijjanti waaye am na baat yoo xam ne boo ca xasee dugg duutu neex a lijjanti de boo taxawee ne ko yow mu bon mi xaraam nga ma du neex a lijjanti wala nga taxaw ne ko xaw ma kan waaye may naa la sa baat may naa la sa baat jëlal say bagaas wala nga ne ko xaw ma kan waaye yow dañ nga ci sa buum ak sëy wala nga ne ko xaw ma kan waaye yow wéet nga ci sa buum ak sëy wala nga ne ko xaw ma kan waaye fase naa la fase mu dog wala nga ne ko fase naa la ñetti fase façon ñeent yi ma tudd la mbaa juróom yi dafa xaw a compliqué ci lijjanti ko lijjanti ko dafay xaw a compliqué lool waaye boo xemoon ci fase naa la rek lu coow li bari bari nga ne ko fase naa la fas ki sa xol bi mel fase te lii nga def ko mi ngi lay door a dal mi ngi lay door a dal waaye waaye kon boroom xam-xam boo dem mën na koo lijjanti ci ngir yépp nag duñ ko jàppee lu dul benn ndax moom nga fas boobaa feegi yedda ja jeexagul yedda yee nag dañuy wutee su fekkee jigéen guy gis reegal la feeg gisagul reegal dugagut ci reegalam ñetteel ma mën nañ ko fay li feeg gisagul ñetti régal daal mën nga koo fay loolu mooy Malik bu dee Saafi'i yu mu ne régalu ñetteel ba feeg jeexagut ñi feeg jeexagut mën nañ koo régler waaye boo yéexee ci Malik ba mu gis ñetteelu régal ba bu ca xasee dugg kenn mënutu koo régler ti bu dee Saafi'i yu boo yéexee ba ñetteelu régal ba jeex kenn mënutut koo defarati soo ko bëggaatee takkaat joxe guru baayam d'accord nga indi ci mën a joxe guru li ma ci nam rek mooy joxe xat can man nañoo takk sans guru dafa bokk ci aada ji rek moo tax bu demee fenn ñu naan waaye waaye can gaa ngi waaye guru gi ñëwagul nañ ko xaar déedéet guru jërul xaar jërul xaar bokkul bokkul ca sëy ba bokkul ca ponk ya dafa bokk rek ci aada joo xam ne ju rafet a rafet la te suñ mag ñi dañoo mën a jàngale ñu ne ana guru ga ñu ne mi ngi nii ñu takk ko takk bu dëgër ñoom ñay ñaani ñooy takk guru gi takk ko takk bu dëgër bu ñu demee ba indil ko ñiñ koy may su ko defee ñañ koy may tamit ne waaw jaam bi mooy tekki guru gi de luñ ca namm takk giñ ko takk ñoom ñay ñaan te ñelee ni may war ko tekki te ka koy tekki mooy jaam bi jaam bi mooy mbokkam la rek mooy doomi bàjjanam kon kay ñoom ñaar ñile le ki jur kii ak ki jur kii ñoo bokk fuñ bàyyee ko sa doomi bàjjan kay yow la rek ndax bàjjan mooy bàyyi tax bu góor rek su boobaa nag kooku bu ñëwee xereñe ba tekki ko daggul laajut paaka utal lancet ñu ne ñun fiñ dal baax na de nii nit ñu teey lañ nit ñu xereñe lañ xam naa nit sëy bi bu ëllëgee lu mu lëj lëj lëj ñoom ñii danañ ko mën a lijjanti ndax niñ takkee woon dàmbaay guru gii ak maanaam danta gi waaye gis nga ni mu xereñee ba tekki ko laajut paaka daggul ko waaye nag yi moo tax yéen doomi bàjjen ni tekki yà yàkkam tekki guru tekki guru dafa am sarta de tekki guru mooy yow dangay weer sa jëkkër sa sang bi ngay weer mooy kan yow mii lañuy mën a xamee euh, maanaam sa sang bi mooy kan moo tax boo xereñee teeytu nànk tekki ko ba jaar fa nga war a jaar waaye waay sagal nga sa sang bi wan nga ne ko ne ko man maa fi maa la fi toogal wane naa ne yow ku xereñ nga wane naa ne yow ku teey nga bu ko lëggee lu sëy bi lëj lëj da ko mën a lijjanti te kenn du leen yëg waaye ne maa ngi nii dama bëgg a tekki danta bi jaam bi taxaw kendu ko fi tekki maa koy tekki ñu ne la mu ngoog yaa ngoog nga ne andi leen paaka bi rusloo nga sa sang bi gàccaloo nga sa sang bi ci kanam ay goroom ñi ko may jabar wane nañ na ñii nekkuñu ñu teey nit ñu ñu ñu yëggatu lañ nit ñu daladi lañ nit ñu ñàkk ànd ak seen sago lañ ak buum loo ciy laajee paaka nga jàll bi ku jël paaka bi dafay tekki ne kii bis bu sëy bi lëjee xam nañ problème bis bu lëjee rek sëy ba foofa lay jaaree yàqu moo tax yéen jaam yi bu leen weer seen sang yi lii rek la ci mag ñi jublu woon moo tax boo fi nekkee naan waaye ana jàmba luñ ciy xaarati ana gurug ak nangam ak nangam da ngaa xamut mag ñi lépp lu ñuy jàngale boo ko delloo ci téere fekk ko ca lu rafet la lu tegu ci yoon la su ko defee nag ñu jaaree fana dantaay jaam bi nangam la lu rek la xaada la waaye baax na jaam nañ ko jox junne mu ne bu ngeen ma joxut junne du ma tekki guru gi yaa wax ne du ma ko tekki kon kay tekki ko rek waaye bu ko dagg nag wala nga jël maanaam dàmb gi niñ ko muuree nga xotti ko mooy tekki ne teeyoo mag ñi dañoo xereñe boo mosaan a ñëw di leen ñaan si soxna ne ñun de diw lañuy ñaanal suñ doom la dañ lay wax ne na ñëw ñun mënuñoo may jabar kuñ gisut soo ñëwee ñi lay testé ba nañ laa testé ci jënd tàngal wala ngi jënd singom wala ngi jënd boisson ne ah xellil ko yaayam ñëw xellil la jël tàngal ji jox la foofu yow nag na ngay naanee ci la xamee yow yaay kan ni ngay yëyee tamit euh, ni ngay màccee tàngal ji lañuy xamee yaay kan soo ñëwee ñu jox la kaasu boisson bi rek nga yëkkati ko rek téelu wenn yoon naanoo di teg par nànk naanaka teg ñu ne ah kii de ko xëppal la xam naa ne boisson bi ni mu neexee ku ko mënta muñal ci gémmañ doo mën a muñal jigéen waaye nag su fekkoon dafa naan ba ci kanam mu teg toogaat waxtaanaat ba ci kanam mu yëkkatiwaat naanaat tegaat def ko lu mat ñeenti yoon te kat mu nekk sang boo xam ne sa kaas ba jeexut ñu ne fiñ dal baax na de ki jëkkër pire la waaye boisson ba ñu jox la nga jaaral bi kun téen ak pon ba naan lépp daal bi ko ne dolli ma yooyu ay kii baadolo pire la ñu ne tàngal ba ngi jox ko tàngal bi ngay macc par nànk di macc ñu lay déglu de soo maccee lépp yeyoo dara ñu ne fiñ dal baax na de waaye nga jox la tàngal ba ngay ngërëm nga ñëw di ko yëy ba ñoom ña ngay dégg ko ci seeni nopp dañuy wax ne ku mënta muñal tàngal ci gémmañ doo mën a muñal soxna yi fiñ dal baaxut suñ demee rek bu pare ñu ne waa baax na dégg nañ ko gis nañ ko bu ko defee jox la ngant ne dafa am ku ko ci jiitu man kat yaayam dafa ma ko yéexoon a wax fekk dañ laa dàq ni nga ni nga ni nga yëyee tàngal ba lañ la dàqee ni nga naanee boisson lañ la dàqee nga bàyyi ci xel moo tax kon ji jamono timit ku bëgg sa doom gi ne ko na ñëw ba ma gis ko waaye ma nga bitim réew xamoon na mu fa nekkee yónnee la photo bi envoyé la ko rek nga dem dal ci kawam ah pertement réccu rek kenn mënu ci dara waaye boo ne na ñëw mu ñëw nekkam yambar wàccee tubay ja ba njël laaye di feeñ sol dàll yoo xam ne comme mu dëgg lor ko fu mu ko fu mu summi tamit muy xeeñ jërul may jabar da ngaa teel a xam ne ku man tey téye jiin du mën a téye jigéen sa jiin bii nga takk sa digg li ko mënoo koo téye mi ngi wàcc di lambar lambari ku ay jigéen nga toroxal ko mu jeex yooyu yëpp ay signe lañ yoo xam ne ci la doon mag ñu baax ñi di xamee ki mat jëkkër ci tekki jaam bi ca danta ba ci lañ daan xamee kiñ dal mooy kan ndax jaam ki nga xam ne jam jàpp ne mooy sa jaam bi wax dëgg yàlla yéen ñaar a bokk a dagoo benn gaño dafa soqeekoo ci jigéen yow nga soqeekoo ci góor gënoo ko fenn kon kooka nu mel noonu noonu nga mel yéen a bokk benn gañu kon yéen jaam yi yàkkamti ngeen lool nañ ma jox junni du ma ko tekki kon bu ñu la joxee junni kon tekkil bul dagg bul xotti teeyal yaa ñuy xamal kiñ may jabar mooy kan yéen ñi nga xamee tamit dangeen ngeen a ñaan ñu ne leen ñëw leen bañ gis leen sol leen colaay gu yiw wax leen wax ju yiw bu ngeen demee lañ leen jox da ngeen ca teey fekk na dañ leen peesa ta fekk yëgu leen ko moo tax suñ mag ñi billahi yàlla ñu leen yàlla fayal moo tax mag ñi ku leen ni contre yëgu loolu xew man su ma ku leen ni dama la yërëm menn mag moo ci jël di ko dama la yërëm moo xam mag ñi jàng diine di ko jàngale la moo xam mag ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu xel màcc ci wàllu nit ñi penc ak nuñ cay nekkee kon mbir yaa ngoog soo ëppalee ba pasee sa jabar ji façon yooyu ma wax la xaraam nga ma may naa la sa baat wéet nga sa buum sëy dañ nga ci sa buum ak sëy fase naa la fase mu dog fase naa la ñetti fase lijjanti ko day xaw a compliqué automatiquement koo ko wax kuy attewoo masabu imaamu Malik bu la yërëmut dellu ca téere yu njëkk ya dafa lay wax ne laa lii daal imaamu malik ñetti fase la ko daan attee te mi ngi jëlee atte bi ci sayduna omar te sayduna omar sahaabiyu la te yonentoo waxoon ne maanaam ashaabi kan nujoomi bi ay him iqtadaytum ihtadaytum omar a fekkoon baat yooyu pénc ma di ko foye fekkoon tamit kuy bëgg a méttital sa jabar bëgg koo xoyoñal baat yu ñàng yooyu nga koy wax xaraam nga ma fase naa la fase mu dog fase naa la ñetti yoon dañ nga ci sa buum ak sëy wéet nga ci xabluki ala xaaridiki mooy may naa la sa baat Omar ne baat yi teg naa ko muy loi ku ko waxati sa jabar ñetti fase laa koy àtte ba mu demee nag ba xilaafaam gi des ñaari at mu génnaat ci ne royeexuma ko ci yonantu bi royeexuma ko ci Aboubacar maa ko defoon lii pour yar sama xeet wi ndax pencam yonantu bi booba baat yooyu amutoon pencam sayduna aboubacar booba baat yooyu xewutoon omar comme yàgg na fi defi presque fukki at ak lu teg looloo waral nag moom loolu ñëw ci pencam mi te amutoon ci ñaari penc yële mu xatte ko bam ko xattee nag ni ñi ji yaru di yem ci baat fase rek kuy fase danga ngaa war a yem ci baat yi alquran tudd ci fase kon du compliqué muy baatab fase naa la baatu fase la alquran tudd ak talaaqu marrataani yaa ayuha nabiyu ida talaqtumu nisaa muy baatab talaaq wala nga xem ci baatab firaaq ji firi teqalikoo teqalikoo naag yow xaw ma kan waaye yow teqalikoo naag yow na ci alquran wa in yatafarraqa yugni llahu kulan min saatihi wala nga ne ko baatab berndil naa la muy baatab tasrix fa imsaakum bi maaruf aw tasrihun bi ihsan ñetti baat yi rek moo nekk ci sunna moo nekk tamit ci alquran muy baatu fase bernil naa la teqalikoo naag yow fase naa la ñetti baat yi ku ca xem borom xam-xam boo dem su fekkee lii mi ngi lay door a dal mu neex a lijjanti nu mu koy lijjantee dafa lay wax ne la waaw waaw neex naa lijjanti mooy rek yedd ja jeexagut demal nga nga euh, maanaam nga fayli ji ko fayli gi nag boo bëggee mu wér sa digganteeg sa borom wér sa digganteeg sa morom àndal ak ñaar rek boo demee rek euh, nga ne ko maanaam maa ko doon fase faseem yar rek waaye delloowaat naa ko ci buum gi moo tax distance boobu sax boo fi deexee te yedd ja jeexagut moom soxna si day bàyyi yedd gam doon def ñëw ténji la donn la diggante boobu tamit moom bu fi deexee yow da nga dem donn ko comme yedd ga jeexagut sa liggéey la muy fase mu njëkk mi su fekkee ne loolu daloon na la jàllal bi ku dalaat la dañ lay wax ne la ah d'accord mais dañ koy takkaat demal nga wuti guru ñu takkaat ko nga indi can baayam nangu ami seede ñu takkee ko ci kër mbaa ci juma te buñ ko nekk nag sa yëpp maanaam sa eh, maanaam nikaaxu sirri mooy sa yëpp nëbbu ah loolu sëy bu ñu nëbbu boobu taxul ñuy wax kooku moom ku suufee rek mooy def takk ak suuf koo dégg mu ne def naa takk ak suuf dafa suufe waaye nit ku kawe du def takk ak suuf baaxut Malick nee na bu ko ko def feeg ñetti xat buñ ko yëgee nañ tas say ba loolu la ci xatte demal ci fiqhul waadi da ko ca fekk kon bu la dalaatee ñi ñi ñi fase diggante bi ñi takkaat ko mu dalaat la su boobaa nag ah ñu ne seen diggante jeex na at talaaqu marrataani fa imsaakum bi maaruf aw tasriwun bi ihsaan comme yow wax nga fase naa la ñaari yoon fase nga ne wax naa la fase naa la muy benn ñi arrangé ko afaa yedda ja di jeex nga tardé ba yedda ja jeex ñi takkaat ko bay nunu tu taxaw na sa kanam suñ ko takkaatee nag nga ne fasehaat naa la mu fekk bale muy ñaar ñu ne waaw ba tey dañ ko takkaat ko buñ ko takkee muy ñaar yooyu nag boo fasehaatee seen diggante jeex na beneen jëkkër lañuy doxal seen diggante naqaralee ko mu fase ko gannaaw bu jàpp yedda nga door koo mën a takkaat waaye boo fi nekkee naan dama fase woon soxna si muy commencé di jàpp yedda avant yedda ja ji jeex ma faylihaat ko mu commencé waat yedda ñu demaat ba ci kanam ma fasewaat ko boo ca def boo ca jël rek dañ koy compter muy fase benn boo ca def rek ci fayl yooyu dañ koy compter muy muy muy muy ak fase ndax loolu lañ daan méttitaloo arab yi seen jabar yi da daan yore soxna doo ko yore doo ko bàyyi duma la jariñoo keneen du la jariñoo su boobaa nag nuñ daan def dama la yore ci kër gi su la yoree dema dem ba ci kanam ne la fasé naa la nga gis ñaari reegal bala ngaa dugg ci bu ñetteel ba mbaa muy jeex ma ne la delloowaat naa la ci buum gi nga yore benn reegal rek ma la yow su boobaa nga nekk ca loola téeméeri yoon duhoo sama jabar duhoo jabaru keneen yàlla ne ñaar laa man moom fas sëy bu ñu takkaat ñaar yoon rek la benn ba mën nañ koo arranger defar nga ñëw beneen ba mën nañ koo takk bu ko defee nag bu amaatee rek seen diggante yàqu na muy at-talaaqu marrataani fa imsaakum bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan nii ma waxee la ko boo demee ci tafsirul qurtubi yu noonu ko ko cay fekkee nii ma waxee la ko boo demee ci tafsiru ruuxul bayaan tamit noonu la koy waxee waaye maa ngi ci fay li rek kon maa ngi benn ba fayle woon naa ko ndax yedda ga jeexut fayle haat naa ko yedda ga jeexut fayle haat fayli gu ne faseem boppam la loolu nañ ci bàyyi xel kon saa yoo faylee ñaari yoon boo fase haatee rek bax da saw ji la kon attaya ngóog ñi bàyyi ci xel boo ñëwee nag xamoo nu ñuy fase jàllar bi ku fase fase mu tàng waxoo fase naa la waxoo bernil naa la waxoo teqalikoo naag yow ñetti baat yi ku ci xem doo xam problème bu la dooree di dal dañ koy arrangé xamul joxe dara bul nangu sax soxna sa génn kër ga fa jabar la ba tey bu liggéey ba jeexut nga dee dana la doon bu liggéey ba jeexut moom mu dee da nga ko doon ah bu fekkee ne nag arrangé nañ ko mu ñëwaat nga demaat ba ci kanam nga fasehaat ko dañ koy takkaat muy ñaar waaye buñ ko takkaatee nag jeex na de boo ko fasehaatee rek ñàkk nga jabar baax da saw ji rek kon mbir yaa ngoog nañ ci bàyyi xel bu baax a baax waaye nag yow boo xamul ni ñuy fasee laajte wuloo dem dugg ca juróomi baat yële nga xam ne ko foo ko wax dafay naqaree lijjanti ci masa bu Malik xaram nga ma fase naa la fase mu dog yaa ngi nii euh, tabaarakallaahu fase naa la ñetti yoon yaa ngi nii dañ nga gis a buum sëy wéet nga ci sa buum ak sëy ak baat yu baat yu mel noona boo demee ci masa bu Malik de moom ca saasa ña ëpp ca ngir ma dañ koy def muy ñetti fas jëlee ko ci Omar waaye ña gën a oyofal ñu mel ni ñoom soxnuun ibnu Qasum ñoom nangu nañ ne nañ ko takkaat baat yooyu bu la gaaree te ngi lay door a dal mu ne dañ koy def muy muy muy bay nunata ñu takkaat ko rek mais kenn du ko mën a fay même donte mi ngi lay door a dal boo jëlee genn wàllu mazhabu bu mu ne nañ ko takkaat may naa la baat mu ne nañ ko takkaat fase maanaam fa fase naa la fase mu dog maanaam euh, maanaam kon dañ nga ci sa buum ak sëy wéet nga ci sa buum ak sëy nañ ko takkaat waaye baatab fase naa la fase mu dog moom wala maanaam fase naa la ñetti fase amul takkaat yaa ko wax ñett la woon ñett ya jeex na su boobaa kon boobu baax da saw ji rek la kon fase lu compliqué la lu naqaree lijjanti la te dafa bëri ci suñu réew mii moo tax dem leen ngeen jàng ni ñuy fase ba mokkal ko door a takk jabar boo ko mokkalu takk jabar soo bu bu bu ni nga meree boo ko fasexee rek da nga ca bëgg dellu siwaat problème am te kenn du ko mën a lijjanti nga mere ki la tontu ne moom tàng mel ni moom moom diina ji nangam ak nangam waa ji wax moo gën a oyof nga dem foofa fekk bërig laaj ji rek moo la ko yóbbu bërig laaj nag la yàlla tere ne yaa ayyuhal lazina amanu laa tasalu an asyaa bu leen bëri lu ngeen laaj loo xam ne bu ñu leen ca tontoo mu naqari leet ndax jabar joo xam ne sa cofeel jeexut ci moom ku la wax ne la doo ko mën a takkati da ko mere loolu benn la ca bëri laaj yi moo sonal suñ mbokki jigéen ñi dal na dal na saydatu naa xawaa xawaa dafa gis reegal ci waxtu julli yi laajut aadama dara aadama laajut yàlla dara yàlla waralul ca dara moo tax jigéen bu yoree reegal waxtu julle ya ko faat yépp du ca fay dara ñetti fan yi ñuy xoor par fan mu gis ca reegal ca koor ga laaj ko aadama aadama laaj ko yàlla yàlla wax ca dara ne ko kom ci koor gi la gis nga reegal daggal doo mën a woor bu koor gi passé fan ya da nga koy fay bërig laaja ko waral bu noppi woon tamit yàlla noppi ja doonte borom xam-xam yaa ngi xiyaas ne buñ bëggoon a fay julli yi day métti ndax julli dana répété wu juróomi yoon ci bis bi koor ga moom fay ko du problème xat mu jot wenn yoon lay répété wu su boba nak yu ca mën xam bërig laaj rek moko waral bërig laaj gi nak bo gisee yàlla aaya ji hadis bi boo demee ci hadis dafay wax ne sababu nusoolu aaya yi aaya yi ñu jàng sababu nusool ba borom xam-xam yi dañ cee wuutee mu yaay wàlli sina moon la tasalu an in tubda tasukum bu leen laaj loo xam ne buñ leen tontoo mu naqar leen te yéen a ngi laaj yonentu bi nekk fi alquran di wàcc di tontu wa in tasalu anha xiina yunasilu alquranu tubda lakum su boobaa nag euh, kenn mënu ci dara ndax bu ngeen laajee yonentu bi rek alquran wàcc ad addu ja kon wàññi leen seen laaj yi fekk booba li waral loolu mufassiruna yi ñu ne boo demee li waral aaya jooju mooy yonentoo toog ibnu jarir a koy nettali mu bokk ci hadisu xataadatu maanaam yonentu bee toog waar saxaaba yi waar wu métti gu jéggi dayo ñi jooy jooy wu métti su ko defee nag fekk wax na leen ci safaraak mbugal maak la ca haju bam ca bàyyee ko mu ne leen lu ma nit laaj tay rek ma tontu la yonentu bi ne laa tasaluni lyawma bu leen ma laaj tay dara an shay'in illa bayantuhu lakum lu ngeen ma mën a laaj tay ma tontu leen foofa nag la benn sahaabi yu taxaw laaj ko ne ko an sama baay mu ne ko ma nga safara kooka mer lool mera yonentu bi te fekk na baaxut loolu xam nga kenn bëgg koo dégg bari laaj baaxut mooy yóbbu tamit tabaarakallahu yaa ngi nii bëgg a dugg ci mbir sëriñ bu ne nga ne ko dama kaay gisaanee la ma xoolal ma waaye waaye waaju bu dawalee pettaaw ya xool na yow ren ngay dee nooy def tey nga am problème di bu dawalee pettaaw ya ne yow di ren euh, ren maanaam sa jabar ji dee yow sa taaw ba nga bàyyi kër ga ren lay dee yow sa halal ji nga xamoon tey lay yàqu te nga bàyyi woon ko noona te ñaan rek mu ëppoon doole mu ëpp solo waaye laaj loo xam ne wala nga ne gisaaneel ma loo xam ne buñ la ko gisalee doo ca man dara dana la métti duutu ko jarati jotu ko jarati matu ko moo tax kon loolu la Malik wax in tubda lakum tasukum anas ibnu Malik mu ne anna rasulullah sallam saaluhu benn bis dañoo taxaw di ko laaj di ko laaj di ko laaj hatta ahfahu ba ñu mujj tanjamal ko ci laaj mu mujj génn benn bis rek ca min bar ma ne bu leen ma laaj tay dara lu ngeen ma laaj tay ma wax ko la tasaluni al yawma an shay illa bayantuhu lakum a ah, fa asfaqa ashabu rasulillahi sallallahu an yakuna bayna yaday amrin qad hadara fa ja'altu لا التفت الا لا يمينا ولا شمالا الا وجدت كل رجل لافا راسه في ثوبه يبكي فانشا رجل كان يلاهي فيدعى الى خير ابيه فيدعى الى غير ابيه فقال يا نبي الله من ابي قال ابوك حصافه لا اله الا الله bi ne ابو مكان kenn laaj dara lu ma nit nga gis ñu sëgg rek jël seen yére ya muuroo ko rek xamoon na benn waay joo xam ne ndeysaanam dafa nekkoon koo xam ne ku ñaaw làmmeñ mënoon na xuloo rek mu taxaw laaj yonent bi ne ko man mii kuy sama baay ndeketoo dañ ko doon askanele ci baayam ndeke baayam jurut ko doom gu judduwut ci yoon la mu ne ko yow xusaafatu moo la jur te keroog la ko door a xam mbolo ma fa nekkon timit kérok lañ ko doora xam ko xamne ne laaje ko tontu ko te man na tontu lu la nakari, te bu li la tontu bu la nakare nga dem safara ndax day fekk ni diine lay tonto diine la neexu mom mi la tontu bu la boko mere dem safara ndax ko bañ dem safara mom yonentu bi salaa wasallam ci la umar ibn khattab taxaw ne raddina billahi rabban dara lañ laajatut ñu dal gëreem nañu yalla muy suñu borom wa bil diinan gërëm nañ la islam muy suñ diinoo bi muhammadin rasulan aisan billahi maa ngi muslu ci yàlla su ko defee nag min charil fitani ci mbooleem xayu fitna yëpp ñu ngi ciy muslu yàlla mu ne man gisuma yonent bi ci la wax ne lam ara fil xayri wa charri kal yawmi xattu suwirat liyal jannatu wan naar xatta raaytuha duna alxaiti akhrajahu shaykhani yonent bi ne tay gisuma dara luy xiiw ak ak lu bon maanaam lu bon lépp a ngi teew sama kanam lu baax lépp a ngi teew sama kanam tey daal ni ma mbir yi leeree musul ma koo leere fii ma toog maa ngi jàkkaarloog aljana te amul benn miir bu ko wër la ca xew yépp maa ngi ko gis ak ña maa ngi gis safaraak la fa nekk lépp amul dara luñ ma ko nëbbee moo tax keroog dañ koo hubbil lawhul mahfuz la ca xew lépp mu di ko mu jàkkaarloog moom ku mel noona boo ko laajee bu bu tontoo rek lam tontu bu dëppoowut ak li nga bëgg rek man ngaa bañ tontu la mbaa nga bañ ko moom dem safara tax nañ bàyyi nañ bàyyi sëriñ yiñ topp yi laaj rek sëñ bi fanaanoo ma sëñ bi defal ma listixaar sëñ bi seetal ma sëñ bi la muy seet nag bu ko gisee wax la ko te yow mënoo ci dara foo jëm bala ngaa dee est-ce que doo dee ngir njàqare moo tax benn waaye ba mu ñëwee ci maamalaaji Maalik ne ko maamalaaji Maalik maa bëggoon nga fanaanoo ma de mu ne ko maali xamul dana fanaan bay mën a fanaanoo kenn est-ce que xuurul man sama bopp danaa fanaan bay mën a fanaanoo kenn kon yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel léegi tamit sëriñ bëri ñeme yàlla jël ay fanaanoo yu dul jeex fanaanoo nelaw xëy créer ay fen gën a jubee nga jël ko wax ko nit ñi ku la gën a ñeme yàlla amut ku gën a mën yaakaar amut ku la gën yooyu yëpp nañ ciy bàyyi xel ñoo am na ñoo xam ne boo leen joxee xaalis ne fanaanoo ma seen bopp dong la ñuy fanaan ci seen bakkan ba bër set buñ xëyee nag rabbu ay fen nam gën a juboo xëy jox la ko loo ca man tous te yow yaa ngi ko gëm foo ne lu wax dëgg la loola nag boo fa toppee boo trompé nit ñi rek yàlla xalak la loolu jar naa daw kon daarul qutni jëlee na ci abi ayaat mu jëlee ci abi hurayra mu ne qaala rasulullah salam ya ayuha nnaas kutiba alaykumul xajju yàlla farataal na ci yéen xaj keroog la ko yonantu wax benn bis benn góor taxaw ne ko fii kulli haamin ya rasulullah ndax xat mu ne lañ war a xaji xool loolu loo ciy laaj yonantu bi noppi mu ne ko xat mu ne lañ war a xajeem yonantu bi noppi bam paree mu ne manil qaa'ilu kan moo doon wax wax ji ñëpp ne ko diw diwa ko wax diwa ko wax bam paree mu ne والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجب والله سما نون واو رك يالا فك ماجا يونتو بي داناي داناي داناي داغانال داناي فراتال ندخ موم لوم اند دوغو تي يالا اند جا ndawal bur kay lu wax buro ko wax ndawal yalla lu wax yalla ko wax ah yonentou bi taxaw ne wallahi suma ne won waw rek mu wax taliko non du dana métti xam nga xaj màkka daal billahi ku ci dem wenn yoon xajee na nga war a xajee la ngay njëkk yëg mooy ne daal dëgg dëgg daal li tax xaj màkka di wenn yoon nekk farata wenn yoon coono bi nga tax goor gële waxoon na ma ko ca tay ba mbayan Mouhamadul Bachirou Mbay doomi sëñ daara Cheikh Modou suñu sëriñ bi ma xajee ñëw ne ma ah, man li ma doon jàng ci mursid ñu naan maratan fil umri maa ngi koy door a dégg xaj ni mu méttee coono bi ci ne bu nekkoon farata ay yoon nit ñi dee waaye lim nekk farata wenn yoon moo ñu noppal te wax na dëgg boo xajee xaj ni nga war a xajee boo moytu dana bëri ko taxaw sa ne la waaye waaye yàlla nga delluwaat màkka booy wax amin tamit nànk nga koy wax dana bari koo ko wax xam la muy fekk boobu moytuwut buy wax amin nànk la koy wax waaye cofeel gu rëy mooy dem ba nëbbu sa coono dara boo ko bëggee dëgg boo koy boo koy sonn doo ko yëg cofeel a métti cofeel moo lay def loolu métti ba pare lu métti la bu ci soppeeku bànneex cofeel rek ko man waaye billahi buñ bëggutoon yàlla bëgguñu woon sayduna muhammad koo may paasu màkka bu demee aji bu ñëwee saaga la bu demee aji màkk ñëw bu ñëwee xeex ak yow a ah, gis nañ ci koo xam ne dafa dem doom ji yóbbu ko màkka ba mu demee defi liggéey ba ba ñëw mu ne ah man maa ngi door a comprendre sama doom ndeke fa bëggoon ma dee rek te man waxut ma ko bi ma ñëwee fii laa ko door a xam moo tax aj màkk bu ko cofeel lalut boroom bu ñëwee rek mer bu ñëwee rek boo tu dana xuloo ka ko yóbbu ne ko vraiment li nga ma joxoon quatre millions yi boo ma ko joxoon ma tabax bâtiment nekk fa di julli dem ci jàkka ja waaye coono bi nga ma teg tabaarakallaahu moo tax ku fi nekkati naan sama yaay day dem màkka seetal as bi fi mu toll xam na foo xam ne bu fi meer bi tolloo mbaa paa bi nga yéexamtalu yéex ko yóbbu màkka ba mu hegg foofa dëgg-dëgg boo ko yóbbu yóbbu nga ko ci coono boo xam ne bu la ko waxoon la ca nekk rek danga ne ko baal ma àq moo tax yéen doom yi wërsëg wi leen yàlla njëkk a may jërul ngeen koy denc di ko korkoral yóbbu leen ci seen baay yi màkk yóbbu leen ci seen yaay yi màkk bala ñoo tële waaye nekk fi ne man bala maa yóbbu paa bi màkka yóbbu meer bi li ma bëggoon a def lépp laay def foog ko man danaa tabax kër jënd oto takk la ca des nag ma door koo xool nu may def ba yóbbu paa yu màkka bi nga ko yóbboo xam ne quatre-vingts ans quatre vingt ma ne sonal nga ki nga ko jox sonal nga tamit ki nga xam ne yóbbu nga ko màkka bàyyi leen loolu baaxut lu metti la te ngeen leen coono boo xam ne la ca ne kenn mënu koo wax ndax wallahi màkka dina toll foo xam ne mal qiyaam ju taxaw la nafsi nafsi kenn du tal kenn sëriñ du tal taalibe taalibe du sal du tal sëriñ doom du fa tal waajur waajur du fa tal doom wallahi bis bu ñaa arafa dëgg nañ këno këno gi nañ dellu musdalifa foofa ñu ca bari dañuy sax far sax tànn maanaam dox waaye yow nga bëgg a dox lu mat sept kilomètres ci mag booba coono foo ko àttane léegi léeg nga gis ñu dox ba ci yoon fatt dee léeg nga gis ñu dox ba ci kanam daanu crise léegi léeg nga gis koo xam ne diggante sànni jamra ya yooyu ca lay ba kanam di def kon yéen doom yi may déglu nekk sàndaga yéen ngi nekk bitim réew yàlla ma ne leen gan la nga njëkk a am ba gaawal yóbbu ki sa baay màkka balaa tëri màkka dafa laaj kartan ni mu laajee alal ni la laajee kartan ni la laaj yee xam-xam waaye nekk fi li nga bëggoon def lépp laay def door a yóbbu paa bi màkka bi ko yóbbu xam na soixante dix ans xam na quatre vingt ans ngay tiitaru naan sama baay laa yóbbu màkka te la nga bëggoon def yëpp def ko ko da ngay toroxal paa bi baaxut nañ ci bàyyi xel yooyu yëpp ci bàyyi xel bu baax a baax a baax kon yonent bi ne leen bàyyi leen bërig laaj ndax bu bu ma ne woon xat mu jot dañoo war a xaji rek yàlla ne waaw te su boobaa du ngeen ko man te su boobaa da ngeen di yokkat te yokkat ci xiiw dafay xañe xiiw te loolu kon baaxut kon gis nga laaj giñ doon laaj albahira toog saayiba moo ko war waral wasila ma jaala allahu min bahiratin wala saayibatin wala wasilatin wala xaamin walakin alladina kafaru yaftarun ala allahi alkasiba wa aktaruhum la yaqiluuna yooyu yëpp xeetu gëlëm yu ñàkk fayda euh, naanaam gëlëm gi bu taawloo doom ju góor góor dootu dootu ca lekkateeg nangam ak nangam yi gëlëm dañ koy xew ca bàmmeel ya kii dañ koy bàyyi muy wëtti di yàqal nit ñi yooyu yëpp dof rek ñoo ko daan defal seen bopp yonentu bi daana wax ne ki gën a màgg ci jullit ñi bàkkaar aa mooy inna azama almuslimina jurman man saala an cheyin lam yuharrim fa xurima min ajli masalatihi cey yàlla yooyu yonent bi bëri yërmande mu ne ki ëpp bàkkaar ci nit ñi mooy lu yàlla xaraamalu toon waxul ca dara ngay dëgër bopp bañ kumpa di ko laaj yàlla ba yàlla jaaree ca xaramal ko te boo boo ko laajutoon kenn du ko xaraamal loolu baaxut lu yàlla waxut dara noppi ca waaye boo ko laajee rek ngir a teengal bu ca yàlla wàccee atte rek gàddul nga mbooleem julit ñi pratiquer acte booba mu tiis te yow yaa ko waral moo taxoon benn waaye dafa wax yonent bi laaj ko ne ko waaw man sama jabar ji su ma fa fekkee góor guy sëy ak moom comme dañ ne njaaloo balaa mën a xam ñeent ñoo ko war a fekkee te ñeent kenn sa morom ne kaay xool dañoo ñëw a dama lay laaj nag man su fekkee dama fekk sama jabar ji carrément koo xamee ne nii ma ngay sëy ak moom nu may def xoolal li ko yontu bi wax waaye gene lama su ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ani rajuli yajidu maa imraatihi rajulan fa in takallama takallama bi amrin azim su waxee wax na lu rëy wa in sakata sakata ala misli salika su fekkee dafa noppi noppi xal nag xol bu naqari bu ko rayee yoon tegu ci kaw nu may def fa këriha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam masaila wa abaha yonentu bi maanaam sib laaj googu waa ji laaj ko am ci naqar yàlla wàcce aaya yaa ayyuhal laa tas'al an ashyaa man su ma ñëwee fekk sama jabar muy njaaloo génn góor dama ko war a rayam wala damaa war a yuuxoo ne ñëw leen dëkk ba yëpp wala damaa war a sama xol bi ak naqar wu métti bi laaj bi laaj nañ ko yonantu yonantu bi mer ba mu ko laajee yàlla wàccee aay ji ne bu leen laajati mbir moo xam ne bu ca yàlla addoo mu naqari leen loo xam ne kenn du ko laaj xam na loo xam ne ñàkk koo xam moo gën xam ko soo ko xamee rek dootoo teqalikoo teeg naqar dootoo teqalikoo teeg tu tu tuuma xam nga nga dégg nit koo xam ne dañ koo wax lu bon xas ko wax ju ñaaw nga bañ ko koo déggalee moo gën nga déggale ko ko moom tamit mu nekk fay bañ kumpa gaayee lu ñu doon wax nga ne ko noonu xaw ma ko nga ne ko faw nga wax ma ko ba mu wax na ne ah li ñu doon wax de mooy nekk yow sa baay jurul la doto nelawati doto lekati da nga ko ko xam ta fekk deug la mo gën téméré ju ñay yoon kon bërig laaj baxut da fay waral bërig waral bërig waral da fay waral yokkat ak kañuy waral yokkat ci lu bax da fay waral kañuy yiw moo tax nañ ci yam inna la taala farada faraida fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'tuduha wa harrama ashyaa fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabxatu anha yaa yonent bu baax mu ne yàlla farataal na farata yi ci suñ kaw buñ ko sank dëdd na frontière yi buñ ko jéggi xaraamal na mbir yi xaraam buñ ko xotti xam na ca mbir yoo xam ne daf caa noppi waxut ca dara la yàlla waxut dara nag ñàkkut koo wax ngir fàtte kon bu leen ko gëstu problème mu euh, euh, maanaam ni dund mbiram tariqa muy salafiya ak suuf yi fii rek lañu ñu wuutee mooy li yàlla waxu dara nag moom lu cay àtte ba kese mu tasawifu na gis ne li yàlla waxu dara njéggal rek la dara niwu ca yi ne waaw li yàlla waxu dara daal képp koo xam ne def nga ko rek indi nga biddaa te bépp biddaa réer la réer gu ne safara la waaw ah, lii la yonent bi wax nag lu yàlla waxu dara yàlla fàttiwut ko dafa leen a yërëm rek bu waxu dara kay lu yàlla waxu dara dara niwu ca lu dara neexoon rek yàlla wax ca dara bu ca dara neexul nag du ca wax dara su boobaa nag kon mën nañ koo jëfandikoo lu dagan la rek ci buntam lu dagan lay dugg waaye boo ne lu yàlla waxul dara nangam ak nangam buñ ko jëfandikoo hee def nañ biddaa def nañ nangam sol xaftaan fu ko yàlla wax takk montoor dafa am ci alquran sol say weer fu ko alquran wax amul amul fenn yooyu yëpp hubbi na porte ba yaatal amul fenn fu yàlla ne dugg leen avion bu ngeen dem màkk waxut fenn ne war leen seen oto yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen euh, euh, maanaam euh, sol yenn yenn xeeci dàll yi fu ko alquran wax waaw ma ne toggal ma ceeb joxe dépense ne ko toggal ma ceeb fu ko alquran wax amul lekk rek la wax su soo fa nekkee nag di indi détails yi ne bii lekk gi la yàlla tudd gee tudd ko nangam ak nangam indi nga jafe-jafe jëlal yem tudd nga lekk ko tamu dagan yemu tudd waxut ca dara ci xeeti lekk yooya lekkal dara néewu ca yu ca yu xaraam wax na ko xurimat alaykum almaytatu wa damu ba ba ba a jeex yi nga xam waxu ca dara nag buntu bu xubbeeku la porte la bu la neexee dugal waaye téeréeb yàlla bi fekkoon ne lépp lay wax dootul fasaxati ku bëgg a wax lépp dootoo fasaxati laaj nañ ko benn góor goo xam ne ku xereñ la ci Ahmed Tidiane si almaktub ne ko buur bu tey ni yàlla wàcce ñu téere bu ndaw bi di alquran xam na fi mag ñoo xam ne seen taalif yi mu ëpp mu ne waaw ñooña lu ko waral mu ne waaw ki bind wax waxam warta bëri waaye nag kiñ bind moom bu ko neexee waxam bëri waaye yàlla moom fa bind wax moo bind kay wax bind wax ja su boobaa kon moom mooma wàcc na waaye waaye ku bind ba bind kuy wax bu la neexee ñàkk a waxati dëgg dëgg mag ñi kenn du ñoom xam nga booba booba booba booba laaj eh, neexut tontu ci njàng téere yu weex yi de téere yu weex yi boo leen ko laajoo jëm lañ bëti noo koy tontoo foo ko jàng xikma mooy lépp wa man yuutal xikmata faqad utiya xayran kasiir ku bind wax ba bind kuy wax wallahi wax wàcc na la bu la neexoon mën ngaa ñàkk a waxati moo tax soxluhut yàlla waxam di bëri moo tax mën ñu téere bu tuuti bii waaye téere bu téere bi fekkoon lépp la ci bëgg a wax kon kenn du ko mokkal te buñ ko mokkalut xiw rëy danañu faat moo tax kon nañ bàyyi yenn yi yàlla lim noppi nañ ca noppi lim noppi dafa bari yooyu yëpp boo ca bëggee dugg rek dugg ci ay détails yoo xam ne kenn mënu koo jeexal fan la yàlla tudd war sax fu nga ko wax dara fu yàlla tudd rajo haut yi tey ñuy def ak télévision yi ñuy def ak rajo yi fu mu xam xamul fu yàlla tudd maanaam groupe yi ñuy def groupe internet yi fu mu am xamul su boobaa nag comme waxut ca dara dara newut ca ma nga aajoo te na nga koy jëfandikoo rek boo ko jëfandikoo ci xanam bu baax am lu baax boo ko jëfandikoo ci xanam bu bon am lu bon mu jeex waaye bu fi ndeel nekkoon damay ni wax ak yéen ci internet bi damay wax ak yéen ci réseaux sociaux yi damay wax ak yéen ci rajo yi danaa leen wax ak yéen ci télévision yi danaa wax ak nangam ak nangam téere bi dootul fasaxati dafay seet rek li nga xam ne mooy li am njariñ mu wax ca li amul njariñ mu noppi ca li nga xam ne nag dafa ñoo yaatal bëgguñ ñu yàqule Ah, bëggul ñi xat tamit mu noppi ca lu yàlla noppi na boo ca bëggee wax rek indi coono xatal nit ñi fekk yàlla yaatal na leen tënk nit ñi fekk yàlla tinki na leen bëgg bëgg bëgg dugal nit ñi safara fekk boo maanaam ña nga ña nga biir aljaana te fekk yëgoo ko aljaana ju yaatu ji nga xam ne du facebook lu sa xol bi xat diw du ca dem ak diw safara la jëm lum lay di lum lay wàññi diw dem safara lum lay yokk diw dem aljaana lum lay wàññi té nga yéene ko aljanna rek bu ca démé nga dem ca bu ca demut timi yow nga dem ca wayé yéene nit ñëpp dem safara ñi nga bëgg ñu dem safara démé safara ah aljanna dana mujj wé té yalla néna wa rahmati wasiat kulla shay'in kon yalla na yalla defal ñu tawfiq te laabal xol raxas ko génné ci xeeti jangoro yu bon yépp dugal ci fessal bëgg yonantu bi sopp ko top ko ba nga xamné dara du ca xajati dul bëgg yalla rek yalla man nako am nako sañ nako yalla nako yalla def xam naa boo ma toppee suba nag ci waxtu wi ma wax la xeet ya jiitu woon bërig laaj gañ doon laaj ba taxoon ñi alku moo tax bërig laaj baaxul fu nit ki xam ak yow rek xem ca waaye nekk damay dugg ak moom ci ruq yeeg ruq ruqaat yi am na ruq boo xam ne bu ca duggee boo may tuxul nga xenu sa bopp bi jooy ta fekk kenn dóorul la loolu moo dal nit yi Moussa ñi bañ fi nekkee ne dañoo bëgg a gis seen seen borom di ko laaj arina laha jëhratan la leen ca fekk duñ ko wax kenn loolu moo dal nit yonentu yàlla saalihu yi bañ taxawee ne ko dañoo bëggoon nga dimbale ñu andil ñu montagne bi mu jur gëléem mu ne leen bàyyi leen li ngeen di laaj ñu ne ko fokk montagne bi jur gëléem ba gëléem nga ñëwee fa mu leen yóbbu baaxut ñëpp mujj nañ al ko dem safara demeet kon sa kilifa fu mu xem-xem fa waaye